Euh, mbokk yi ñun tey suñu problème mooy lan dañu ñëwoon tey maanaam ci préfet waaye fekk ñu préfet quoi ñu suñu problème mooy maanaam euh, instant bi euh, taalibe yi am nañu problème rëy amuñu sécurité amuñu kaaraange parce que maanaam tëli fi tani moto yi ñoo ngi rey ñoo ngi mbëkk ñoo ngi damm problème fi tani maanaam nit ki pour pour jàng bi moto yaa yaa ngi mbëkk instant bi wax ñaari tëdd hôpital ñaari ñu ngi hôpital kenn ki instant bi ñu ko war a jàll Thiès dafa instant dafa métti quoi ñun nag bu sañoon ñu am doodaan bu baax mën nañu am sécurité ak kaaraange moo tax dañu jóge suñu daara ñëpp ñëw fii maanaam bëgg gisee préfet mais préfet fekk ñu ko fi ñun nañ bëgg maanaam képp ku ñu moo dimbale te yàlla tax ñu am maanaam doo bu baax mën a am sécurité loolu tax ñëw fi tey incha allah nii quoi ci camp bi fii nii ci ci kaw tali bi rek foofu la taalibe dajaloo mooy seen heure añ seen heure rek ñu foofu daal mooy seen seen garan place foofu bu amee sécurité rek incha allah na doon jàmm incha parce que ñun dañoo pour xam téere yàlla bii bàyyi suñu kër waajur yi ñëw jàng alxuraan bii vraiment amuñu sécurité loolu na ci ñun suñu waajur yi jaaxle nañ ci amuñu benn solution bu dul maanaam jàng alxuraan bii léegi nag toog ba yàgg ne sa accident la wala am na problème rëy nga jaaxal encore te vraiment métti na hôpital si ordonnance na nguur gi bu ñu dimbale ci lu mel noonu parce que euh, maanaam talaba day dem du am ñu ngi jënd ordonnance te foog te ñun loolu vraiment war nañu dimbale ba ñun taalibe yi képp am problème ba dem hôpital ñu faj la dimbale la ci maanaam affaire ordonnance yi loolu vraiment bëgg na ko loolu ku ñu dimbale ci yàlla tax nu ñuy jëwu ci daara asuufa loolu moom vraiment ñëwu ci gisuñu ci dara dara dara gisuñu ci fi mu toll nii ñu am suñu problème bopp suñu bëggee fóot ñu bëgg nag ñoo ko wut suñu ñu waroon am a faje suñu soxla ak yu bii sonn ci lool ngir yàlla rek tax te amuñu ñu sañoon nag lépp dima ci daara yi moo tax ñëw tey ñëpp ànd ñëw maanaam ñëw fii ànd ak ñëpp man na vraiment mënuma wax sax mais euh, par li ma métti ci ñun quoi dañu métti ci ñun lool vraiment accident yi métti nañu lool met na lool moo tax vraiment bu ñu sañoon ngeen dimbali ci yàlla tax ñu am suñu sécurité suñu boobu tey la ma su tànk incha allah rabbi